mission bi nga xamné lancé euh, plan de développement communal euh, amone ay interruption interruption d'abord il euh, y a la crise sanitaire et puis ensuite bu une crise bi équipe bi nga cabinet bi nga def ay équipe donc loolu xawoon na des processus mais yàlla dimbali renouvellement partiel de l'équipe et que tey euh, en tout cas pour maanaam ku processus bi hein, yi nga doon nañ ko def ak yi pour am plan de développement communal pour euh, def nañ euh, euh, la mairie de Anne Belair euh, le maire euh, également tout l'exécutif municipal. liggéey fi mu toll mooy quand même am djego ay jéego yu bari yoo xam ne jot nañ ko def bi moy né biñu biñu biñu lancer mission bi def nañu atelier manam pour informer nit ñi hein. biñ ci joggé également cabinet nga cabinet bi nga xam ne moom lañ dénkoon liggéey bi amna na liggéey bu jëk bo xam def nako ko ci walu li tubaab di wax diagnostic. manam saytu un peu chambar un peu euh, li nga xamne tay mom mo nek ci commune bi pré pré diagnostic toi bi ko pré manam diagnostic bu jëk diagnostic bu jëk bi nak moy euh wone euh, fan lañu toll tay ci ci commune bi ci ci yenn secteur yi mo xam ci walu santé ci walu ci walu environnement ci walu yoon yi ak yenn yenen secteur hein euh, ci walu agarma kurel yi nga xamne mom mo fi nek hein voilà euh, Euh, ci walu éducation euh, manam joxé dal une photographie wane né fi lañu tollu donc liggéey bobu def nañ ko liggéey bobu tam bi ñu ko defee euh, weccoon manam organiser ñu organiser nañu ben lël bo xamné effectivement dañ ko partager ak nit ñi donc lolu mom moy liggéey bu am solo bi nga xamné def nañ ko té lolu tamit bokk ci diagnostic bi parce que comme niñ koy waxé rek càmbar bi mom ñaari façon chambre, la benn boo xam ci document yi la nek mais beneen bo xamné également ci nit ñi ci seen bop ñom ñoy wax seen xalaat euh, kon tay li nga xamné mo moom moo nekkoon ci kayit yi muy xam-xam bo xamné dañ ko waron recueillir lolu je crois que cabinet bi def nako suñu objectif tay mo don lan mo don d'abord parce que jotoon nañu sax planifier wax joxe ay date on tay il a fallu ak retard yi nga xamné amon na pour que ñu jappat yenen date lolu je pense que jeudi bi di ñew dañ ci gëna liggéey gën a liggéey pour mën a xam dat yi beneen objectif également mooy wax nit ñi tamit wax nit ñi fan la ñu toll ci liggéey bi mooy li ma laaj léegi wax nit ñi fan la ñu toll ci ci liggéey bi mais également jël ay matukaay tamit pour que atelier yooyu nga xam ne tey ci la ñu jëm muy diagnostic participatif may càmbar yoo xam ne nit ñi ci seen bopp ci gox yi nga xam ne moom la ñu ci zone yi nga xam ne moom la ñu identifié nga xam ne ñoom ñooy def seen ñoom ñoom ñooy càmbaral euh, seen bopp euh, euh, liggéey boobu ànd ceeg nag teewaayu cabinet bi expert yi nga xam ne cabinet bi moom moo leen moom moom moo leen recruter donc liggéey boobu tey moom la ñuy waajal loolu donc tey moom lañ doon atelier boobu lañ doon def tey jàppaat nañ jox jàppaat nañ sax beneen bés maanaam alxames pour faire un travail avec euh, animateurs pour que nous déjà cette semaine nous déjà commencé dem ci wax parce que dans cabinet nous avons ci méthodologie plan de développement communal ñëwaat nañ ci que lool am solo la euh, ci comité de planification élargi bi nga xamné mairie Hann le maire de Hann taxawal nako pour que ñu gunge cabinet bi il faut que ñom ñu gën a engagé déjà ça, engagé wu nañu mais ñu a engagé wu parce que ñom son leur rôle c'est un rôle actif c'est-à-dire dañu war accompagner cabinet bi dañu war accompagner cabinet bi ci démarrage mission bi dañu war accompagner cabinet bi fekké dañu war organiser ay atelier ci gox goxaan mais également dañu war a accompagner cabinet bi bés bu cabinet demee ba pare téere yi nga xam ne moom lay bind comité planification élargie avant document yooyu di dem conseil municipal déjà comité boobu daf ko war a saytu donc man recommandation bi may def mais vraiment comité boobu gën a impliqué wu en tout cas ci mission bi je pense que loolu lu am solo la beneen bi leneen li nga xam ne également dinaa ko recommander mooy vraiment euh, au niveau des populations également gox euh, zones yi nga xamné identifier nañ ko moy hmm, côté maris am nañ fa ñaar ba zone côté littoral bi ak zone industrielle ak Marinas ak yenen zone yi nga xamné identifier identifié nañ ko que nit ñi tamit waajal exercice bi parce que wax nañ ko ci également ci atelier bi préparer plan de développement communal du événement bo xamné chaque année da koy def mën nañ ne sax pratiquement chaque six ans quand même mën nañ ne aan ah, niñ ko defee nii mën nañ ne guleet la donc euh, comme nag euh, dafa nek document boo xam ne daf ñuy engagé pendant six ans man lima, ma li may recommandé mooy ne population yi ci zone yi nga xam ne moom la ñu identifié ñu waajal en tout cas dinañ fa ñëwaat pour gën leen sensibilité, mais vraiment ñu waajal ko hein, et que ñu impliquer wu parce que lii nga xam ne tey moom la ñuy tëgg lii nga xam ne tey moom la ñuy daf leen di engagé pour six ans donc engagé pour six ans je pense que faut que nag ci wàllu xalaat euh, ci wàllu xel ci wàllu xalaat ci ay proposition vraiment ñu waajal ko taxaw taxaw ci bu pour que en tout cas euh, li nga maire un plan boo xam ne dañ ci gis